ci doxalinu làmb wante tamit war a waxtaan ci li nga xamante ne bii moom mooy bëre simple bi nga xam ne gis nañ yi nga nga di ci dugg incha allah loolu la ñu bëgg a waxtaan ak allah ci ci tuuti. d'accord y a pas a pas de mbokk yi ñuy topp ci Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen euh, ñaanal jàmm di sàkku ci yéen tamit ngeen euh, ñuy ñaanal bu baax a baax tey nag ñu ngi dalal ki nga xamante ne bii moom mooy euh, Pape Thialis Faye jiite Leewtoo production Leewtoo production nag ku ko tudd xam ne label la ba nga xam ne day taxawal ay combat day tëgg li nga xamante bii moo mooy làmb combat bu mag bii war a dox ci diggante Tapha Tine ak Boy ñoom ñoo ko taxawal moom la dalal tey nag du ñu def rek lu dul mu nuyoo Pape Thialis ñu ngi lay nuyu bàyyi na nga nuyoo ak mbokku internet waaw jërëjëf Mbaye Babacar ñu ngi lay nuyu donc du nuyu équipe bi nga àndal équipe technique bi nga àndal donc du nuyu waa Sénégal du nuyu amateurs yi aussi. jërëjëf euh, Pape Thialis nuyoo bi am na solo lu ñu def rek lu dul dugg ci li nga xam ne moom mooy biir waxtaan bi li waral waxtaan bi nag mooy euh, dañu gis ne taxawal na benn combat muy dox ci diggante Tapha Tine ak Boy Niang di combat bu amateur yi di xaar combat ba nga xamante ne bii am na coow macha allah mais boobu ba léegi dégguñu nga wax li nga xamante ne bii. mooy kañ la ñuy ñu bëggoon rek nga ay leeral su fekkee mën nañoo xam combat boobu ñaari mbër yi kañ la ñuy waaw Babacar d' abord di la <coughs> remercier si question bi nga posé pour man c' est une question à l'heure bu ñëw si si heure bu mu war a ñëw combat Tapha Tine Boy Niang je pense que nii man ak ñoom contrat moo ñu lié donc dans le contrat li ñu ci def c' est très clair mooy que pandémie lañ ko signé moment bu ñu ko signé moment la boobu kenn xalaatul ay combat ñu jël xaalis jox leen signé leen signé leen signé leen euh, contrat jàppoon nii pour jël sécuriser ñun xaalis bu ñu génnee dans le contrat on avait bien sécurisé contrat bi na combat mën na am saison deux mille vingt deux mille vingt et un bien saison deux mille vingt et deux mille vingt deux donc yàlla def na pandémie bi ba léegi mi ngi fi mais quand même mi ngi mi ngi mi ngi jeex ñi ñaan suñu borom mu gën ko mu gën a gaaw a jeex. mais combat bi incha allah bu ñu ñun suñu obligation en tant que promoteur ci contrat bi moom la ñuy respecté mooy que incha allah avant contrat bi durée bi di jeex ñun dinañ dinañ tëgg combat bi. jàppoon nañ fa date le vingt cinq juillet ñu bindoon correspondance parce que ñun lépp lu ñuy sekk ak CNG bind la du wax téléphone du du du dara CNG ba bañ duggee slamb lamb ji ba léegi lépp lu ñu sekk ñoom bind la du téléphone bu ñu wootante du fu ñuy gisante lu dul bind correspondance envoyé leen. bind nañ correspondance envoyé ne ñun dañuy bëgg a jël date vingt cinq juillet pour tëgg ci làmb ji ba léegi tontuwuñ ñu mais jàpp dégg naa ni am na keneen ku ñu jox date bi loolu aussi sa normal parce que bu fekkee ñun peut-être <coughs> woowu ñu dem ñu ñu ñu régulariser kii bi bu amee keneen ku soxla date bi aussi da koy jël parce que date bi nekk fi pour man nekk fi pour ma sàmm wala ñu pour ma demba mais teewul année bi trois cent soixante cinq jours la on a huit mois ci saison bi donc ba tey ñu ngi ci saison bi ñu ngi ci aussi ci durée contrat bi bu ñu ko waree tëgg dinañ ko tëgg. kon yow bi xaar pas xaar ñu woo ma xam nga situation bu nekkoon si làmb ji am na yeneen combat yi fi jiitu woon maanaam te ñu ñu ñu ko laaj Ama Baldé Modou jiitu na am na fi Siteu Papa Sow am na combat yi jiitu woon te ñoom réunion bu ñu mujjee def mooy que dañuy xool. combat yi xam moom la moo nekkoon saison passée te mujj ñu ko déroulé ñoom la ñuy jox date ba par rapport ñu jox ñu date. Mm-hmm. mais bañ a bañ régulariser. dépendre ci CNG bi. c'est-à-dire tey c'est pas le CNG moo am faute pour que ma régulariser ou pas donc man maa am contrat ak ñaari partie ñaari mbër yi donc man damay respecter obligation contrat bi mooy aw ma lenn yàqum yàqamti pour tëgg sama combat parce que tant que maa si. Euh, si jalewu délai contrat bi. léegi léegi amateur yi nga ñu bëgg a xam. Hmm. mooy que hmm. nga ko préparé pour si date si durée contrat bi. incha allah waaw li nga moo ñu sekk muy bi mille vingt et un ou deux mille vingt deux saison bi ba saison deux mille vingt deux donc partenaires yi nekk discuter ba bu ñu demee ba déggoo ba jàpp lépp mu kii bu nañ officialiser date bi ñu ko war a tëgg incha allah. est-ce que moment bii ñaari non amu amu amu pression bu may bu bu may bu bu ma mën a teg man nit mënu teg benn pression. donc damay def li nga xam ne man toujours respecter obligation bu nekk si contrat parce que contrat dañ ko formaliser moom moo moo ñu moo ñu tënk ñu ñëpp donc ki nekk am na benn obligation boo xam ne moom moo nekk si contrat moom la engagé. man li ma engagé en tant que promoteur maa ngi chaque jour maa ngi koy essayé di ko respecté ñoom aussi lu engagé en tant que lutteur mi barañ parti bi war nañ aussi respecté ko. mais retard bi non retard bi c'est normal on est dans une situation aujourd'hui boo xam ne c'est très difficile donc il faut chercher des partenaires il faut man dafuma pay-per-view donc damay liggéey ak télé bu may liggéeyal aussi ñu ngi see discussion amoon nañ contrat. contrat bi jeex na parce que c'est pandémie bi la la tombé woon on est en train de waat pour defaraat beneen contrat ci loolu lañ nekk buñ ci paree rek incha allah dinañ taxawal dinañ ko officialiser datu tenue combat bi régulariser ko pour bégal amateur yi. si dinañ ko jàpp parce que ñu ngi si. je pense que dernière bi incha allah dina fekk ñu ñu pare bu ñu pare dinañ dinañ jàpp dat. bala ñoo dugg ci beneen semaine ba bu ñu duggee ci semaine bii di ñëw incha allah mën nañu jàpp ne. dañ jàpp date incha allah incha allah incha ñu gis euh, beneen affaire tamit ci li nga xam ne moom mooy boobule combat ñu gis euh, kii di Boy Niang euh, jël ci beneen contrat. Hmm. wartee bëri ak beneen bëri bu ñuy wax Balla Gaye ñu gis ne ñu bëri ñu ñaari contrat yooyu noonu yoon la wala du yoon. waaw pour leeral foofu je pense que ni contrat boo ko xasee am mu nekk en cours amoo droit signé beneen contrat ci lu mu mënti nekk mais comme làmb la nit ñi peut-être nekk nekk dans l'informel parfois di nga signé contrat dans la discrétion am na fi man def naa ko te dinaa fi combat dans la discrétion signé naa contrat ci suuf boo xam ne peut-être dañ ci làmb dafa am mais laajul mbër mi di affiché wu wala keneen di affiché wu mais mu ngeen ko signé téye ko bu combat boobu jeexee ngeen soog a fësal fësal seen combat loolu am na ci làmb yàgg nañ ko fi gis mais cas bi dafa ka li may wax noonu parce que cas bi dañuy taxaw signé def cérémonie tout ça et loolu c'est interdit maintenant ñun yàlla def nañu yàgg nañ ci làmb ji am na ci expérience boo xam ne ñu yëpp prévoir nañ ko ci contrat bi donc lépp lu parti bu ki nekk li nga def rek am na pénalité donc moom booy ñaar lu mu def noonu am na ci droit boo gisee génnu ma def di wax parce que jarul wax parce que xam na li moom lu li ko lié contrat bi nekk la mooy obligation bi ci contrat bi donc xam na ni bu amee lu mu def xam na yan pénalité moo ko ciy fekk donc ñu on fekk appliquer la pénalité donc moo tax jarul jarul jarul coow maintenant ki ko tëgg aussi amul dara lu ñu lié man ak moom lu tax man ma empêché ko pour moom mu tëgg ko bu ko neexee mën a tëgg làmb bu ko neex mais du lu du élégance que moom muy def loolu mm-hmm. donc du lu ma met dara méttu ma dara surprendre ma si lu ma def parce que ba ma juddoo ba léegi noonu laa ko xamee nit ki noonu la mel donc amul lenn loo xam daf may surprendre donc lépp lu mu def rek jàpp ne ni moom c'est sa nature. donc euh, non amul noonu il n'est pas élégant amul élégance loolu loolu loolu du du du du ku am élégance def loolu quoi. def loolu mais nag c'est sa nature nit koo xam ne ñëpp ñëpp noonu lañ ko xamee xale yeeg ñëpp noonu lañ ko xamee donc je pense que ni du dara loo xam ne métti na ma ci wala du loo xam ne def na ko lu ma surprendre non non non. sa diggante moom amul benn jafe-jafe. man aw ma jafe-jafe ak doomu aadama waxuma la làmb mais même au delà de làmb aw ma jafe-jafe ak doomu aadama aw ma jafe-jafe ak moom aw ma jafe-jafe ak ñi ko tëgg amuñu amuñu amuñu problème gaston mais amuñu amuñu benn problème mais nit ki nekk ak ñi ngay xalaat ak esprit bi nga am xëy na moom esprit moo toll foofu mais amul amul solo. xam nga donc làmb ji moom yàgg nañ fi mais je pense que bañ fi ñëwee ba léegi <clears throat> on a vu du lii du lii suñu premier problème ci lii. chaque année nit ñi jéem a def pour lu ñu bloqué wala loo xam ne ni kii mais pour man suñu borom moo fi nekk kenn nekku fi donc loolu la moo ci am solo. est-ce nga xamante ni mooy dox ci diggante Balla Gaye ak euh, Boy Niang te combat boobu xam nañu nag bi sa combat boobu mënul mënu mënu mënu ñoom mënuñu am date cest à que combat boobu mënuñu ñoom mënuñu fixé wu si date te suñu combat fixé wuñ si date. parce que dafa lié te suñ combat mooy jiitu donc suñ combat ñu tant que ñu waxuñu telle date la ñoom mënuñu am date c'est pas possible donc moo tax mën na nag tëral teg combat na na te combat mënu ko suul parce que Boy Niang Tapha Tine combat la Balla Gaye Boy Niang combat la donc amul benn combat bu ko mën a bu ko tax mu mën ko suul maintenant li des mooy liggéey de telle que combat bi euh, kii bu mu war a mën a am mu am ko day bu mu war a am mu am ko je pense que incha allah dinañ si dinañ si ñu for ci wewu bëri. ñu mmh. waa CNG woo nañ la téléphone ne nga ne leen damay ndox. non xam nga <laughs> man ku xam-xam ne yenn yenn réponse yi du ma ko du ma ko joxe. Mmh. te CNG wax naa sànq ni sekku ñu wax téléphone. aw ma seen numéro à part ñaam bi ma am numéro amul keneen ku ma am numéro ku ma sa a wootante ak téléphone. CNG bind lañu sekk. je suis le seul promoteur bu sekk ñoom bind. ba mu fu nekkee ba léegi amul lenn lu may def ak ñoom te binduma ko. bind te décharge baa ngi fi donc man bind laa fekkante ñoom du ay téléphone donc bu ko wax loolu aussi jeex lu ko neex rek amul benn CNG kenn ku may woo comme sekk naa moom ay woo amul seen numéro fixe yoruma ko benn numéro laa fa mi mi <coughs> mi CNG mi Njàmbe à part moom bind laa sekkante ñoom ak envoyé mail donc loolu waxu waxu waxu nit ki yàq la. Hmm. mooy combat Tapha Tine yi mooy ñu jël xaalis bi toll nañ jox ko ay mbër ba pare te te te duñu am date sànni wuñu xaalis bi donc incha allah dina am date mais date bi nag ñun ñoo koy choisir combat moom. ñooy choisir date ñooy choisir fu ñu koy tëggee ak fu ñu koy defee kañ lañ koy def. keneen mënuñu ko keneen imposer. Hmm. moom mooy non bëre simple c'est juste pour ne pas ñu toog sans activité. defuñu ko parce que bëre simple lu neex la nekk na activité nekk na presque xoolee mooy base làmb mais toog sans activité parce que affiche yi ñu am jàpp ko ñu date pour pour régulariser ko donc moo tax ñu dugg ci bëre simple bi en attendant que ni euh, affiche mag yi di commencer. Mm-hmm. gis na nag dugg nga dem fële ca Joal. Mm-hmm. Ndangaan di préparer pour dem Loul Sessène. Mm-hmm. zone boobu kese waaw xam nga lu simple la ñun <coughs> xamuñu si lu bëri donc am na benn équipe bu ñu si liggéeyal donc ku mel ni ku mel ni Abdou ku mel ni ay ñoom Leyti ñoom Matar ñoom Matar euh, ñoom Matar donc ñëpp équipe bu ñuy bu ñu jàppale Leewtoo la donc ñoom ñoo xam lu parce que amateur lu simple lañu donc ñoom la ñuy jox ñoom ñooy tëgg ñooy def lépp. ñun dañ naa ñu rek fii la ñuy tëggee lii la ñu bëgg a def lii la ñu soxla ñu jox la ñoom ñu def. mais labelu Leewtoo lañ ci utiliser moo tax ñu dugg ci le simple bi mais man en personne tëggu ma tëggu ma ma lamb mm-hmm. waaw. Mm-hmm. ñëw mm-hmm. xam nga foofu aussi lu ñuy préparer amul am na boo xam ne ñooy gérer le simple boobu je pense que ñu ngi préparer événement bu mag donc foofu Loul Loul donc jour Korité donc mooy équipe bu ma la wax noonu te ko. donc Pathé ñaax daa tëgg foofu moo dem tëgg foofu d'habitude chaque année mm-hmm. rañ mu ne day bàyyi équipe équipe seen équipe bi ay copainam tëgg ko donc loolu moo war a dugal suñu xaalis dugal si label bi pour que ñoom ñu tëgg et jàpp naa ni aussi début ko ñu dugg ci lutte simple bi gis ne ni lu simple bi aussi euh, ñu ngi si apporter ñun lu ñu lu ñu mën donc ñu ngi si béy suñu waar te incha allah aussi luy CSN bi aussi dina nekk événement boo xam ne ni bu ñëpp di di di di la après. Mm-hmm. bon kàddu gu mujj gi mooy peut-être euh, remercier leen donc remercier équipe Leewtoo bi remercier ñoom du ñu may tudd ñoo nekk si lu simple bi di leen di remercier aussi donc euh, di remercier Max Margan bi nga xam mooy suñu coordonnateur parce que tey lépp lu ñu def ci Leewtoo rek lu Max waxul rek jàpp naa ni man waxuma ko donc Max rek moo am tey voix autorisée boo xam ne lépp lu mu wax ci Leewtoo jàpp leen ni loolu moo am parce que loolu loolu lañ sekk ak moom donc mu nekk suñu mag nekk dugg ñu si làmb ji diñ tete te ñu si làmb ji donc lépp lu ñuy def moom lañ si waxtaanal ba pare moom bu ko waxee rek jàppal ni ñun ñoo ko wax donc bu weesoo loolu leneen lu nit wax te jógewu si mag si rek jàppal ni ñu waxuñu dara donc ñu ngi lay xaar arène nationale bi si ñoom du la dépendre bu fekkee ni tey am nañ date je pense que avant arène nationale bi sax réunion bu ñu mujjee def ak ministre bi joxe nee na dina jéem a waxtaan xool nu muy def pour ubbi Demba Diop parce que daj yi bëri na combat yi bëri na te lépp xajul arène arène nationale donc loolu aussi ñu ngi ko si remercier ministre bi di si remercier équipe bi yëpp parce que loolu aussi idée bu baax la nekk na loo xamante ne day tax làmb ji day tax làmb ji mën a mën a mën a continuer que ñi am daj yëpp ak làmb yi nu mu bëree ñëpp mën a tëgg sans ñu am jafe-jafe si saison bi arène nationale mi Demba Diop en tout cas équipe bi nga xam ne dañoo gérer le simple ba buñ si tolloo ñëw incha allah buñ waxee buñ jàppee daj aussi ñu on va mettre les moyens pour ko làmb am foofu incha allah. Hmm. tàggatoo woon hmm. weeru koor nekk. Hmm. bon weeru koor moom ñëpp xam nañ ko dina sellal donc <laughs> équipe bi fii ñu nekk fii xam ne donc sellal moo fi nekk waxtaan duñ ko dem duñuy dundee sans weeru koor mu ñuy dundee. donc amul benn benn benn différence parce que naturellement ñun noonu la ñu mel naturellement boo xoolee fii noonu la ñuy noonu la ñuy def donc amul benn différence ak nga xam ne moom laay moom laay dundee sans weeru koor parce que bu ñu weeru koor aussi en tant que musulman li la war mooy chaque jour nga def ko bon c'est pas parce que weeru ñëw nga bëgg changer ci ko. Mmh. donc waaw donc xam nga moom noonu lay def donc moo tax donc loolu moo amul ñun net ñun góor lañu donc nekk jullit. donc weeru koor sans weeru koor toujours bu ñu gisee war na xam ne ñu ngi si yoon bi donc te ñu ngi si yoon bi donc moo tax amul différence weeru koor ak sans weeru ci man. bu ñu sa non sa ñëpp ko dund Sénégal ko dund loolu amul. booy jàng école <laughs> nekk xale nekk élémentaire il faut nga jaar ci def loolu. mais loolu c'est da ngay jàng du du du doo ñëw rek mënul koor koor jàng la Eh, nekk xale bu daw di woor demi journée wala une heure deux heures temps dem lekk ñëwaat ñu ne ko ñu woor c'est apprentissage la. boo demee ba mënal demal sa bopp nag di dem élémentaire di dox dem jàng bi ñëw aussi di nga woor demi journée loolu ñu lay jàngal moom ngay appliqué waat donc bu demi journée nga lekk ñëw dem sa kër na woor na ainsi de suite mais ñu am foo toll da ngay mature da ngay xam ne nii waaw da ngay xam ne léegi lii devoir la. bu la suñu borom teg danga nga ko war a respecté bu baax da nga ko gën a moom gën a bëgg ci biir koor gi. bon koor laa gën a bëgg. ko non pas moom je pense que ni koor moom jarul jarul lekk lu diis wu ci ci ci plat bi wala plat bële. mais na nekk loo xam ne léger na rek. loo xam di nga ko mën a lekk après nga mën a ko digérer mën a tëdd normal mën a jóg def say naafle yooyu. moo ko amee baax na donc mais mënu ma focaliser tel plat ou tel plat parce que man laa bëgg man bañu ma dara. man taaliba lépp laay lekk. am na xëdd am na man du xëdd man du ma bu ma waree beñoon laay lekk. ma ci pare te lekk mais lekk pare tuuti laay ñam après parrainage. Mm-hmm. donc du ma du ma du ma du ma xëdd. waaw aw ma si jotu xëdd. yàlla yàlla doolu jàmm kontaan la. waaw ñun tamit euh, kontaan nañ ci yéen kontaan ci liggéey bi ngeen def. kontaan aussi si ñu ngeen jàppee liggéey bi ci weeru koor bi métti na mais <coughs> deewul chaque jour di ngeen xëy la matin ñëw fi ba ngoon doo ñu leen si jaajëfal wax lañ aussi àdduna liggéey rek moom leneen leneen amu fi yàlla def na Leewtoo ñu fi nekk ñëpp ay jeunes la ñu donc je pense gis naa ni ñëpp bëgg nañ liggéey bi. donc loolu lu am solo di la si jaajëfal di jaajëfal équipe bi nga àndal jëfal ñi nga xam ne aussi ànd ak ñoom te ñu ngi si liggéey bi di jaajëfal amateurs yi surtout ñoom ñoo tax li ñuy def nii ñoom ñoo tax ñu ngay def di leen si jaajëfal jaajëfal waa Sénégal yëpp di jaajëfal aussi partenaire yi ñu ko sekkal ak mbër yi ñu ko sekkal di la wax ni dara ñaaw fii parce que ñun ñëpp ñoo bokk nekk benn. dañ ñëpp dañuy def pour avancer làmb mais na am na loo xam ne moo ñu tënk muy contrat que ki nekk aussi jéem a bàyyi xel ci contrat bi nga xam ne moo moom moo la tënk ak sa ak sa ak sa ak sa ak sa morom donc loolu daal la la lu muy tëjee di ñaana Sénégal jàmm di ñaana ñëpp jàmm donc euh, yàlla jàmm yàgg Sénégal parce que loolu la ñu xam yàlla na jàmm yàgg Sénégal parce que loolu lañ xam loolu la ki nga xam ne moom mooy Pape Thialis Faye jiite Leewtoo production tëjee ay kàddoom ñoom tamit foofu ñuy sof suñuy kàddu rek dinañ jaajëfal bu baax a baax yéen ñu doon topp ci Leewtoo TV jaajëfal sama équipe bi ma àndal Mansour Bamba Fama Ndeye Mbacke ak Assane walo bi leen dig daje incha allah beneen yoon ak beneen invité jaajëf.